jamono ji insécurité nek lo xamné que lu la ci réew mi ba ñu bari amatuñu fit doxi seeni soxla wala sax liggéey kat yi nek marché jeudi bu wakam di xamlé sonu trop ci agression bi ak bi. sonu lool sonu way bëgg a commencé sunu njaay mi garé na dañuy sunu bagage ci dañuy keuf caméra non trop auto yi sax légui dañ insécurité bu bi ma sonn nañ torop sonn da ngay gis ku jël sa bagage di daw te saako yi attanuñu ko dafa diis saako boo xam ne mat na 30 kilos loolu mënoo ko yenu di daw da nga koy obligé bàyyi ko ci marché ba te gëm yàlla rek nañ lu ma ci am jël waaye moom man ma sauvé sama bakkan moom ma gënal ñu yóbbu sama bagage ñun daal noonu lañ koy dundee sonn rek maa fii. waaw alhamdulilah ñoo ngi sant yàlla bu wér a wér a wér a wér insécurité moom bëri na ci dëkk bi mais avant insécurité amoon na xanaa dafa gën a yokk mais li ko yokk la ñuy laaj lan la lan moo waral insécurité am parce que tey bu bu jaaroon nam war a jaare wala ñu teg mbir mi ci yoon ñi ñu teg ci tali bi nii tey buñ bu doon yàgg nañ ci tali bi insécurité kon du fi jógee insécurité kon du am mais dañoo bàyyi ba moment bi ñu doog génne génnee policier mu gën a nit ñi mooy tax si insécurité am parce que nit ñi rek même bu ñu gisee policier dañu tiit loolu moo waral coow li mais insécurité tamit li ci li koy li koy gën a mën a dindi mooy dëggu jubal tegu ci tey leeral parce que bu mbir mi dee jub tey dëggu tey leer rek je pense que insécurité doo am waaw non maanaam mënta dal moom mënta dal mais comme lii la ñu yàlla nattoo dañ koy jël parce que munoo nekk ci mbedd nga fay liggéeyee chaque jour nga dégg euh, taal nañ fii taal nañ fee nga ne yow sa xel dal na loolu da ngay nax sa bopp benn même bu dul yow sax yow lañ ko def peut que mën nga wàcc nga bàyyi sa bagage ci biti ñu taal ko loolu lépp day am parce que gis nañ ko parce que ñaata yoon la ñuy sàcc suñuy bagage loolu rek benn du sécurité bu ñuy sàcc sa bagage comme tey maire bi ma denc sàcc ñaar kon taal bi tamit mën nañ ko d'accord moo tax suñu xel mënu ci dal suñ xel mënu ci dal franchement bu ñël day dal day dañuy wax non metti seulement du du du kat yi rek population bi yépp ko yépp secteur bo dem mu ngi metti ni ko ni ko ni ko gone yi di yar mu magal la fo lal day metti ndax rew jàmm mo mën am tranquillité am mo mën tax tranquillité am mo mën euh, tax nit bi lu mu bëgg def def ko moy tax nit bi lu bëgg wax wax ko moy tax nit bi fu mu am droit dem dem fa liberté googu bu amatul ci réew daanaka dara amu fa. waaw waaw waaw li ngay wax nii fekkee woo ko sax mais lënd rek dal nañu. lënd ñun installé nañ di jaay ba ngoon vers dix-huit heures la booy def descente suñu police ñoo ñoo ñoo xar rek ak mari bu gaaw daf teel a teel a teel a intervenir mais sinon doon nañ am problème ndax booy ful la ñëwee te ñun suuruñu ko. waaw te ku nekk sa bagage ngay tal ñom ñu tal leneen déjà loolu yeneen affaire la mënoon na indi beneen cause bu gën a garaaw. commerçant yooyu di ñaax xale yi ñu bàyyi manifestation yi te xeexee ak seen carte électeur ndax li ñuy yàq wala li ñuy jël alalu jàmbur état bi moomu ko. xanaa xale yi ñu bàyyi te xam ne manifestation noonu ñuy xeexee fajul dara loolu fajul dara xam nga luy faj yaa moom sa carte togal nga muñ lo ko ya yaa moom sa carte election joté nga xol ki ngay voter waye li ñuy def ni di yak alalu jàmbur te lool ñuy yak du alalu gouvernement alalu jàmbur la do xamna ñom ñoko ñoo ko ay gor gor ko ñoko seen sen bop ñukoy yàq ak lak lool du ben yoon an waxante deug ñu suñu marché bi rek marché leen di yàq nañ fi bagage yu bari keuf nañ fi caméra jàmbur yàq nañ fi bagage jàmbur te wax dëgg yàlla loolu buñ ko la yaay perte kenn du lako fay deug yalla son nañu sonn nañ torop mbedd mi di profité ci yenn occasion yi loolu rafetul ñaaw na te image su Sénégal euh, salfaañe nañ ko ñaaw na wax dëgg yàlla sincèrement parlé ndax tam dëkk bi dafa bëri secteurs yi mel nii informel bi ñi nga xam ne nii dañuy xëy débrouiller pour seen kër dund ñi nga xam ne bu ñu xëyul dépasse bi du dem jaween yeeg sekkeen yeeg et cetera cetera suñu sañoon li dëkk bi libre nit ñi fiix ku ne dam foo bëgg a dem ku ne daf loo war a def. kii di Assane Ndiaye moom nee na nag ku njig njàkk état mooy njàkk. pour le moment man ñiy sàcc man man duma ma leen blaa ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi insécurité bi ñi bii ñuy wax période bii ñi ko waral man ñooñu duma ma leen blâmer parce que peut dañ ma gën position sax moo tax ñu koy def yaa ngi dégg wala ñu am lu ma lu leen gën a naqari que man ñu koy def à ma place mais waruñ ma ci woon a jiitu waaw parce que lépp ci kaw lañ ko gisee. lépp ci kaw lañ gisee parce que ci kaw su juboon rek parce que nee nañ tegle bu dëngee rek ba jiitoo jub bu bu jubee ba jiitu moo jub mais bu tegle dëngee rek ba ca suuf moo bon yaa ngi dégg kon li ci kaw na jéem a jub li ci suuf jub. parce que bu ñu gisoon tey ñi ci kaw jubal tegu ci dëgg tegu ci saraatal ma mustaqiim di jubal di dëggal tey leeral ñi ci suuf ñemewuñ ko def ba barke alxuraan parce que lépp lu dëng rek ca kaw la dëngee. muy lu ñu nemmeeku lu bëree bëri te muy dox di law ba tey muy ñàkk kaaraange mi ci réew mi tax na fi dalatul xel toogatul ku nekk yaa ngi xool nooy aaree sa bopp wala sa alal loolu moo waral ku nekk di ñaan état bi mu jël ci ay matukaay.